yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu ñeent fukkeelu njàngale mi ak ñeent yéesu moo yilif dee yeesu dekkil na lasaar nanu baamtu nettali yi weesu benn lan moo dal yeesu ci kaw tund wi fala yàlla mi nekk ci moom tàmbalee mel ni luy tàkkal yaramam wax ñaar lan la yàlla wax ci mbirum yeesu yàlla nee na kii mooy sama doom ji ma dige ñett kan la taalibe yi wax ne mooy yeesu wax nañu ne yeesu mooy almasi bi yàlla dige mooy doomu yàlla ji ñeent yeesu kan la wax ne moom la nee na mooy almasi bi mooy doomu yàlla ji juróom lan la yeesu wax ne dina ko dal nee na metit dina ko dal te farisiyen yi ak xutbakat yi dinañ ko fitnaal nee na itam dinañ ko rey waaye dina dekki ci telu fan wa mbind mu sell mi nee na ci yowanna saar fukk ak benn aaya ñaar fukk ak ba aaya ñaar fukk ak juróom-ñaar mart ne yeesu borom bi boo fi nekkoon de sama càmmiñ li du dee waaye xam naa ne fi ñu toll sax loo ñaan yàlla mu may la ko yeesu ne ko sa càmmiñ dina dekki mart tontu ko ne xam naa ne dina jóg bésu ndekkite la keroog bés bu mujj ba yeesu ne ko man maay ndekkite li maay dund gi ku ma gëm boo dee it di nga dund rax ca dolli kuy dund te gëmma doo dee mukk ndax gëm nga loolu mu tontu ko ne waaw borom bi gëm naa ne yaay almasi bi di doomu yàlla ji war ñëw àddina bu leen fàtte ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi yeesu moo yilif dee yeesu dekkil na lasaar nettali bi mu ngi aju ci ni yeesu dekkilee lasaar gis nañu yeesu def ay kéemaan yu bare léegi dinañu gis ne yéesu moo yilif dee linjil wax na ci mbiri nit ñu yeesu dekkil tey dinañu ci nettali benn rekk yéesu amoon na benn xarit bu tuddoon lasaar mu ngi dëkkoon ci betani lasaar amoon na ñaari jigéen kenn ki mu ngi tuddoon maryaama keneen ki mart yéesu bëggoon na lool xaritam yooyu jigéeni lasaar yi woolu yéesu ndaxte lasaar dafa feebaroon yeesu wax ay taalibeem ne feebar boobu yàlla dina ci jaare feeñal ndamam ak ndamal doomam yéesu xamoon na ne lasaar mu ngi sukkaraat waaye loolu taxul mu dem betani dafa xaar ba mu am ñaari fan mu soog a dem yéesu ne taalibe yi lasaar dee noonu yeesu ak taalibe dem betani bi ñu agsee ñu fekk nit yu bare ca kër ga booba lasaar dee na ba ñu suul ko ba mu am ñeenti fan màrt génn ngir gàttandu yéesu mu ne borom bi boo fi nekkoon sama càmmiñ lii du dee waaye xam naa ne yàlla dina la may lépp loo ko ñaan yeesu ne ko lasaar dina dekki marta xalaat ne ndekkitel nit ñi ca bésu àtte ba la yéesu di wax yéesu ne ko man maay ndekkiteli may dund gi ku ma gëm boo dee it di nga dund raxte dolli kuy dund te gëmma ma doo dee mukk ndax gëm nga loolu mart tontu ko gëm naa ne yaay almasi bi doomu yàlla ji ñëw ci àddina noonu mars dem woowi maryaama ne ko yeesu agsi na maryaama daw si ci yéesu daanu ci ay tànkam di jooy mu ne borom bi boo fi nekkoon sama càmmiñ li du dee yéesu laaj leen fan lañu suul lasaar waaye bi leen yeesu gisee ñuy jooy moom itam jooy na ndax naqar nit ñi ne gis ngeen ni mu bëggee lasaar am ñu ne moom ganaaw faj na gumba lu tax mënul woon tere ab xaritam dee ganaaw loolu yéesu dem ci bàmmeelu lasaar bàmmeel bi am xunt woon mu ñu tëjee ak aw xeer yéesu ne leen dindi leen xeer wi màtt ne yéesu bu ñu dindee xeer wi fii dina xasaw ndax néew bi am na ñeenti fan yeesu ne ko ndax waxuma la ne boo gëmee di gis ndamu yàlla noonu yeesu ñaan ne bay maa ngi lay gërëm ngir nga dégg ma xam naa ne dégg nga ma waaye wax naa li ngir nit ñi nekk fii gëm ne yaa ma yónni noonu mu wax ci kaw lasaar génnal lasaar génn ak ay càngaay yi néewam yéesu ne leen yeewi leen ko te bàyyi ko mu dem nit ñu bare gis loolu gëm yéesu waaye farisen yi ak xutbakat yi dañu meroon ci loolu dañu ragaloon ñëpp topp yeesu te kon waa room yi dinañu ñëw wàccee leen wala sax nangu réew mi farisen yi ak xutbakat yi daje ak seen kilifa gu mag gi kayif kayif ne leen kenn nit rek dee ngir ñëpp moo gën réew mi tas kayif xamul woon ne yàllaa ko ko tax a wax li tax yàlla xiir kayif mu wax lii mooy yéesu waroon naa dee ngir nit ñëpp mucc foofu la njiiti yawut yi tàmbalee fexel yéesu ngir ñu rey ko fii la nettali bi yem am na ay laaj benn lan la yeesu wax bi mu déggee ne xaritam lasaar dafa feebar yéesu wax na ay taalibeem ne feebar boobu yàlla dina ci jaare feeñal ndamam ak ndamal doomam ñaar ndax yéesu xamoon na ne lasaar dee na laata muy dem betani waaw ñett lasaar dee ba am ñaata fan laata yéesu di agsi betani amoon na ñeenti fan ñeent lu màtt xalaat ne moom la yeesu di wax bi mu ne lasaar dina dekki mat xalaat na ne ndekkital nit ñi te bésu àtte ba la Yeesu di wax. juróom yéesu nee na ñi ko gëm duñu dee mukk loolu lu muy tekki. loolu mooy ñi ko gëm duñu tàqalikoo ak yàlla ngir dem safara seen yaram dina dee waaye seen xel dina nekk ca yàlla ba faw juróom benn lu tax yeesu jooy amoon na naqar bi mu gisee li bàkkaar indi ci àddina maanaam metit ak dee juróom ñaar lan la yeesu def bi mu demee ci bàmmeelu lasaar yeesu wax na leen ñu dindi xeer wi noonu mu ñaan wax ci kaw lasaar génnal juróom ñett lu xew lasaar génn na ak ay càngaay néewam juróom ñeent lan la pharisien yi ragaloon ne mooy am bu nit ñi gëme yéesu dañu ragaloon ne waa Room yi dinañu leen wàcce walla ñu jël sax réew ma fukk lan la kayif sëriñ bu mag ba wax kayif dafa wax kenn nit dee ngir ñépp moo gën réew mi tas fukk ak benn kan moo am sañ-sañu maye dund maa nangu ko yàlla fukk ak ñaar ndax benn bés yàlla dina dekkil nit ñëpp ngir àtte leen waaw benn bés yàlla dina dekkil nit ñëpp ñi gëm kàddoom ak ñi ko gëmul ngir àtte leen. yan melukaani yàlla ñoo feeñ ci nettali bi te naka la ci feeñee. yàlla xam na lépp. yéesu xamoon na ne lasaar dee na laata muy dem betani. yàlla mooy borom doole. yeesu dekkil na lasaar te bu fekk na lasaar dee na ba néew bi am ñeenti fan gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yeesu yërëmoon na waa kër lasaar beneen yoon dinañu waxtaan ci li yéesu jàngale ci mbirum borom alal yi